maa ngi koy woo sama nijaay Amadou Salif ak waa waaw waa waa waa Nord Foire rendez-vous le a ko faaw. waaw onze bila bisimilah inna wala yàlla ginnaaw bañ sant yàlla jërëjëf bi seen suñu ñaari waajur dañuy sant sunu sëriñ Cheikh Abdoulahi Camara moom sëriñ Saliou santati sunu sëriñ Cheikh Abdoulahi Camara moom sëriñ Saliou di nuyu waa Géejawaay bi yëpp ay ASC Géejawaay bi yëpp maa leen nuyu di nuyu di jiital ci nuyoo bi sama papa Lirou Diagne monument Géejawaay. jërëjëf balañ noonu la nuyoo mais balañ tey balaa ñuy ñëw ci waxtaan bi dama gis Géejawaay kenn desul école de lutte wal Walfadjri Géejawaay Papa Kan ñëpp ñëw teew lan la digganteem ak mbër yi nekk Géejawaay. waa sante yàlla rek ñu nay ndaw lañ ko waa yu nekk si yoon. waaw wax dëgg yàlla waa yëpp génn nañ dooleel ñu ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax baax di leen si gërëm ndax gis nañ ne waaw woote moom nit ñi ñëw yombul waaw waaye ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax a baax surtout nag baa Fallou di jégalu waa koñ bi avant tout d'abord maa ngi jégalu waa koñ bi bu baax a baax a baax waaw ndax su ma amee combat waaw gone du ñu am jàmm waaw ñoom tamit du ñu am jàmm 10 jours combat nii lay demee waaw maa si siy jégalu waa koñ bi yëpp bu baax a baax am na solo am na solo balañ nga jëm ci jours yi la 15 la 15 nag ku ne xam na ne mbokk ñëw na ba pare suba moo ci des ak ginnaaw suba dama la seet si nga ne ma Fallou ma ne la ah nga ne ma Papa Baldé Cissé bu ndaw bi laa indi mais bii Cissé bu mag bi laay indi dama koy ceer ba ceer la ci ginnaaw Papa Baldé dama ko seeti mu ne ma balañ du dossier mandat dépôt laa koy dóor loolu la wax de. waaw waxoon nga ma ko. waaw maa bii chairman bu dof bi la. boo ko dóoree mandat dépôt benn wet la koy tëddee ba mu jeex waaw nee la kees balañ song na balañ dóor na balañ jàpp na balañ daan na dama koy këcëg ba këcëg li ci ginnaawam jox ko gone yi ñu ko loolu maa ngi fa am mais lamb ji ñu seetaan leen seen jàkkaarloo mu dox ci kaw nga dox ci kawam mu ne la lamb ji wax nga ci am lii nga ci am déglu ma nga ne ko duma ma la déglu duma lay duma daan la ñu gis ni balañ dafa mel ne dafa am benn excès de bu muy dégager bu nekk ci moom est-ce loolu boo ko indee jouru làmb ji mënu la tromper. déedéet làmb jouru làmb ji incha allahu faal dara du ma tromper man la yàlla faral. ok incha li ma jàng rek laay ñëw tari. waaw man li la ci Papa Baldé rek sama yoon neew ji concerné wu ma. ok incha li ma jàng ànd koog samay mbokk la kees loolu laay ñëw tari te li ma gëm. li ma yaakaar am ci njottu te dara du ko dindi. la kees incha allahu ba balañ songu na balañ dóor na balañ jàpp na balañ daan na. mais moom mais moom nee na day ñëw de neena na du la xaar day ñëw. waaw non dañuy daje. loolu la wax de. non dañuy daje bi chairman bu dof bi la borom ciseau bi. may dañuy daje man ak moom bu ñëwul ma ñëw bu ñëwee dañuy daje. ok mais ñu gis ne Fapal Balde boo tawee jël ko da lay tóor tànk mun na jaar sa franc yi wër la ndomba. te balañ bu ñu arbitre pipe du xalaat te moom nee na du la xaar day dajeeg yow. dama ne la la 15 Pikine bu ñu ngembee boo ñaa bu ñëwee tëdd. ah waaw loolu mooy li nee na jotiwoo si ñooñu ci moom nga jot. dëgg moom moo tax may la la kees moom day tëdd. mais yow li nga may wax nii toom du ma ko dégg de ay day dóor tànk day dóor loxo. man damay sax naaw di bëre. mais est-ce xam nga papa. waaw li leen diw papa. nee naa la man géej waaye moom a ñor. bëre bi ci moom. waaye man waa Tigri wala Fajiri ñoo dàq bëre ci làmb ji te ñoo fi ne nga naan mooy bëre bi ci moom. Tigri wala laa ne. révélation bi dàq bëre la ne. ok waaw kon man ku ne lu waay ko jaaxaluma ay ñoom caaw fa ne ñoom daam ay ñoom am laxas dañuy capala la ñuy def. mais ñu gis ñu gis nga fonk bis bi tamit fonk nga bis bi xaw ma nag adversaire bi moo toll noonu wala bis bi moom moo toll noonu lan la bis bi ni ko fonkee. waaw damaa woote géejawaay wuy si ma nag. waa te wuy si bi ma géejawaay wuy si sas la. Hmm. waaw tey lii neex na trop yéen journaliste yeeg ñëpp yéen gis neex-neex bi. waaw waaw mais man sas laa gis. ok maanaam lii. bala 15 daal. bala 15 yàlla baax na waa bala 15 incha allah. ok sunu naataangoo yi dañu leen di jox ñu sànni ci ay kàddu. ay ca sëñ Fallou li may wax barañ sax ndax c'est pas boo xoolee Baleine mu ngi dugg de février 2024 la dugg ci làmb ji Baleine fi mu toll ni mu ngi ci 3 combats 3 victoires macha mu war a dem disputer premier grand combat mu le 15 août incha allah ñu gis géejawaay ñëpp génn gis nañ fi champion yëpp jarul ñuy lim ku lim juum ñu gis ne dañ ko topp ci ginnaawam côté mobilisation côté forme Baleine fan la toll ak mobilisation bi maanaam sas la lii lan nga lan nga ko gisee daal maanaam géejawaay ni ñu génnee topp sa ginnaaw monument yi. waaw sant bu baax a baax a baax sant sas la soñu la. waaw ndax nekk xale bu ndaw waa dugg ren ci arène bi dafa goo sax cinq mois ci arène bi waaw mu demee nii loolu ak cant la waaw maa ngi ciy cant bu baax a baax a baax di leen ci sant ñoom waa géej waa gi fi teew ñëpp maa ciy sant ñëpp waaw di leen jox rendez-vous le 15 incha allah waaw ma ceer Papa Baldé ceer da ci ginnaawam mais mobilisation foofu wax na question bu am solo mobilisation ku ne xam ne ne làmb léegi mobilisation la balañ daan na mobiliser mais combat bi grand combat la premier grand mobilisation est-ce que ñuy xaar rouge balañ def ko nu kenn mësul la def arène nationale parce que Papa Balde nee na trois heures waa Pikine dañuy ñëw de te dañuy feesal stade bi loolu la wax waaw Baye Galas mobilisation ku dee ci marché yaa tàggee sa bopp nag yaa ngi fi boobu ba léegi yow gis nga li fi ne nee na nee na 15 jël dama ne la ku dee ci marché. yaa tàggee sa bopp mobilisation yow gis nga li ne. ok le 15 incha allah géejawaay gépp dinañ génn ñëw dooleel seen doom. ñoom Pikine li ma leen di xamal mooy bu ñu demee boo ñaaw bu ñëwee tëdd. Ah. waaw loolu la. jërëjëf kon balañ dañ lay bàyyi nga gërëm rek ñu tàggatoo ak yow. waaw gërëm mi nag maa ngi sant ñi si jàpp ñëpp galas di sant sama staff waaw loo xam ne loolu moom dama koy teel a sama staff ay jàmbaar lañ barke Serigne Sall nee naa la man ay bac plus rek ñoo may dara mais dañuy bàyyi seen lépp seega design seega li may sol lépp moo koy defar waaw dama ko fay dërëm baas yeeg yëpp moo koy jox waaw maa ngi koy sant bu baax di woo waa Guédiawaye nag 54 ay bi yëpp hmm. waaw di woo ku mel ni Assane Naar waaw kooku day jàpp ci mobilisation balañ bu ndaw Assane Naar balañ soo amoon 4 Naar barke Serigne Saliou Mbacke duy stade bi ba mu raase ndax Assane Naar da siy jàpp bu baax waaw maa ngi woo Guédiawaye waaw di woo Babaloola maa ngi koy woo bu baax Passamba Diédhiou sama papa jàpp na si maa ngi koy woo bu baax Passamba Gueye Bastal maa ngi koy woo si làmb ji moom yàgg na si jàpp Iba maa ngi koy woo si làmb ji maa ngi woo Tafa Wade tamit si làmb ji bu baax ak ñaari seex yi maa ngi woo Cheikh Visé ak Cheikh bu Ndiol bi maa leen di sant ñoom ñëpp di sant waa marché Xelkom waa Pàq Baye Moussa waa Tool ba mafia Nord Foire bi tamit bàyyiwuma kenn Bamas laa ko teg si loxoom mafia Nord Foire bi mais géré na ko bég naa ci moom waa Nord Foire ñëpp ñëw nañ maa leen di sant waa Ultra Guédiawaye waa mafia 2 heures waa Comico Ndiobène fépp partout dans le monde mënu Guédiawaye ak fu waaye waroon di Guédiawaye maanaam looy yóbbante sa mbokk alpulaar yi faw nga wax ak ñoom waa sama mbokk tukulóor yi maa leen di woo ñoom ñoom fou de production waaw jërëjëf waay barki Serigne Touba fu la production da siy jàpp bu baax nelawul barki Sëñ Fall daf ma yónnee xaalis bu bëri jàpp si maa ngi koy biggee bu baax a baax di sant tamit sa ménagère doggi sama 10 pour cent waa Père Iba du laal dërëm taxi la di naan doole mais teewul barki Cheikhul Khadim du dagg dërëm si wan sama maman Matou ak yow presse bi ñëpp maa leen di sant maa ngi sant waa presse bi ñëpp maa ngi woo waa ci lañ waaw ñëpp ñëpp. gars ñëpp rek ñëpp rek xajuñu fi. moo tax nag gars yi nee nañ fële su bi suba ginnaaw suba. incha maa ngi woo waa Darou Khon ñëpp bàyyi ma kenn. waa Baye Laye woo naa géej waaye ñëpp na ñëpp ñëw. jërëjëf gars yi kon rendez vous rendez vous gars yi rendez